di wax nak na Dalifort ñep guen parce que doomu Dalifort la ma ngi commencer sama musique euh en 2021 ci concours bi ñu naan vacances kër maam bi doon amee Walfadjri ma ngi nuy tamit de passage sama papa sama tonton Aliou Ndiaye bu mo mo moo nekkoon moom euh, moo initié woon compétition bon man dama yàgg bëgg musique mu naa ne sax passion la ci man parce que bu may dëkk kër Mbaye Fall nekk sama papa sama sama tante dafa ma doon topp chaque jour dama don woyentu su liggéey dama woyentu truc genre yooyu mu toog ma ne doo dem defi ji petit doo dem petit gaale affaire yooyu mais yàlla yàlla def lu gën peut être yàlla dafa ne sama aar lay commencé fii si Dalifort ma ñëw fii Dalifort am may anniversaire am benn artiste fi nekkoon mu wóyal ma envoyé ko ma mu envoyé ma audio wóyal ma man tam ma jëlaat wóy bi ma jël audio bi wóy mi ne mais yow t'as une très belle yooyu noonu sa baat bi dafa neex doo doo doo kii focaliser si musique bi noonu mu commencé di ma di ànd ak artistes yi Dalifort fii di duggante ak ñoom di dem studio affaire yooyu noonu foofu laa débuté sama carrière musicale voilà. wax si bon mun naa ne sama carrière mhm. euh, base bi lépp sama parent yi la. Mhm. ndax mënu ma mënu ma avancer sans sans sama parent yi sans seen accord day métti mais ñoom mun naa ne lépp ñoom la surtout sama yaay mhm. bu ma commencé sama compétition bi toogul ba yàlla def li ba ma dem final ma jógee ci ba tey mi ngi jàpp wul di ma jàppale. di ma naan defal nii nii ngay def ba ci dafay dem sa parfois dama bindal ay texte ne ma pourquoi pas nga indi thème bi pourquoi pas nga def lii Rufiane ba ma jàppale daal franchement lépp ñoom la. Nabou jàng bi ak ak woy bi nan nga ko nan nga ko nan nga ngi jàng ba léegi. mën naa ne yomb na yombul maa ngi jàng mais instant bi maison art maison des arts laa nekk. da nga arrêté jàng. dama arrêté maa ngi Isabesta académie fa laa nekk Yoff. ok jàng loolu loolu la motivé nga war a bàyyi jàng bi dem mu ci kese. comme ni ko olof Ndiaye waxee rek affaire yi lépp gëm-gëm la te mhm. man damaa jàpp ni gëm-gëm baa ngi fii xam naa ni mën naa ko te mën naa ko def moo tax ma ne pourquoi pas balaa may perte sama temps jàng naa mën naa lii naa bind maa ngi ci egg naa ci benn niveau bi aussi ma bàyyi dem defi ji art dem gëstu ji musique dem maison des arts jàng ji musique pour mën a egg fenn fi Nabou musique ak Dalifort Nabou musique si banlieue est-ce que loolu yomb na am nga ci jàppale am nga ci dimbal yomb na yombul métti na trop franchement musique métti na trop

kay prise kay def ni moy wo ay répétition affaire yoy non mako ci dama séri ko sante bu baax da bu ko neexoon tam mënoon na ko ci bañ fekk mais da xamni ne doomu Dalifort la te ma ngi nek ci yoon di jang sa normal mu jël ma tek ma ci yoon jàppale ma ne ma ni ngay def ni ngay def surtout dima conseiller aussi ma koy remercier bu baax. est-ce que suba suba suba dinañ xaar suba ñu jéggi jékki gis Nabou ak rs def ben featuring ñoom ñaar. waaw lepp mu na nek mu na nek inshallah allah te man loolu lu may bëgg la sax lu may bëgg la parce que mom mu na né quelqu'un la ci dëkk bi. ndaanaan la du ma ne ci dëkk bi sax mais dans le monde partout dans le monde ñëpp a ko xam Cap de Sèche ku ko dégg xam ko ci conseil ku ko xam xam ko ci lu baax xam ko ci jubte kon kooku damay damay sawar pour pour liggéey ak moom. na bu ñu gis nga def ñaari clip ñaar wala ñett. ñaar ñaari clip ñaari clip bi topp ne fan nga amee mooy pour def clip bi rafetee noonu. bon comme ni ñu ko waxee rek lépp fii képp ku commencé dañ laa jàppale te képp ku nekk ci yoon tamit dangay ñaan ku la jàppale man dëkk bi balaa mooy dem di uti feneen dafay uti sama biir dëkk voilà monsieur le maire. wala jàppale si ñaari clip moom a jàppale si ñaari clip premier moom moom laa ko wéyal sax moom laa ko jagleel moom laa ko wéyal ci campagne am bi ba yàlla def lu gën mu gagné mairie bi ma jël son bi. ne pourquoi pas dégg naa jox na la xaalis a naw non remercié na ma daal jox na la xaalis bëri dégg naa la ñaari millions lañ la jox. li ma leer ba leer ma daal mooy dimbal weesuwul. ndimbal weesuwul nga am euh, nga nga am sa son nar ko tourné clip mu taxaw la si jàppale la monsieur le maire depuis sama compétition 2021 ba tey moom mooy jàppale nga xam ne drapeau Dalifort laay dem fu muy fu mu munti dem Dalifort laay représenté ma dem ba tënga ji compétir foofu noonu moo ma doon jàppale si côté car yeeg supporters yi ticket yi tout franchement moo tax moom tamit bu ñëwee ba bëgg a soxla mairie bi te forcé man tamit ma jàppale ko te forcé nga jàppale ko sa relation yaag Baye Diop waajur mën na né man xolé ma sax bëtu monsieur le maire bëtu papa la ko xolé suma ñëw ba tollu fenn fi ñëpp dima dégg ñii di ma bàyyi xel mom la mom mën na né lepp mom la parce que mom moma don man man dama ko don dama ko wëyel té yalla tax parce que dama ko bëggoon dama ko bëgg franchement té yalla tax ma génneel ko son bi mën na né son bu mako wëyel motax ñu bëri jàpp ma tey jii bëggal mu seen bokk amna ñi nga xamante ne dañ ne boo bëggee bàyyi rek dañ lay bëgg franchement mo daf ma jël def ma doom doom mo man tam ma bàyyoo ko mu ko ñuy de passage diko ñaanal mo xam ne mu bëgg ci xolam yalla nako yalla defal

mu ma bu baax franchement. Pascal mo sa ménager. waaw mo ma nekk di jappalé moom ma nek di teg di ma lijjantil yene émission yi franchement amu ma fayam di la nuyu bu baax di nuyu wa mafia bi surtout ñom pis suñu suma ma rek damay juum ak sama copine lepp ñom la. yaay aduna bet na ma bëreer nay suma yaay boy ñewal nga gindi ma aduna bet na ma bëreer nay suma yaayu booy ñëwal nga gindi ma yaay xam naa ci yow lu ma ruusul toog fenn di ko fa wax baay wax naa ci yow lu ma ñeme toog fépp di ko fa wax suma yaay booy sama teraanga baay booy sama kiiraay maa ngi koy jagleel képp kuy yaay ci àdduna bi di la souhaiter très bonne fête des mères waa di leen ñaanal gudd fan ak wér yaram di ñaanal ñi nga xamante ne aussi seen yaay nekk nekkatuñ fi yàlla fi ñu jëm gënal leen fi ñu jóge yërmande yàlla ci seen kaw rek nabu am nañu lay jaawale nabu naan nabu c'est musulman wala nabu nabu chrétien la nabu lan nga ñuy si loolu waa sa normal ñu may laajte loolu bëri na nabu chrétien la wala musulman ñu ma koy laajte bëri na mais mën naa ne c'est normal parce que man Casamance laa juddoo fa laa yaroo Ziguinchor laa juddoo jàngee école am na nga xamante ne dañ naan man vie chrétienne laa yor mooy na mais nabu la nag jullit laa jullit pire. waaw. Hmm. Ah. mën nga ma mën nga ma taral benn saa Fatia. naa taril Fatia kay mais ak sama tenue bii du pour tari nag. nabu <laughs> nabu yaa ngi daw de. non daw ma. Ah. waaw. mot de la fin bi la lay nekk ak na la lay ban dénkaan lay jox population Dalifort ak tey ci bëggoon na nabu pour jàppale ko si ban numéro lay jaar. waaw sama numéro xam naa dinaa la ko jox après nga jaarale ko si suuf ku ma bëgg a jàppale da ngay da ngay envoyé message si numéro bi 77 496 87 45 77 496 87 45 képp ku ma bëgg a jàppale wala nga soxla ma pour programme wala dara mën nga ma woo ci numéro boobu waaw di leen wax tamit ngeen xaar ma seen doom mi ngi ñëw ak doole di leen ñaan tamit ngeen jàppale ma dem suivre ma abonné sama compte YouTube Nabou Sitar sama compte Instagram Nabou Sitar 29 sama compte TikTok Nabou Sita 29 ok merci beaucoup. ci micro bi fort na de. si wax naa ko ba pare loolu. waaw xarama déglu ma rek. waaw waxal. carrière fu mu toll nii. Hmm. yaa ngi comprendre parce que da ngaa defagul dara moo tax kenn mënu laa posé dara moo tax. waaw loolu la maa ngi soog a commencé. sa jëkkër bi la wax si moom. sama jëkkër man sama jëkkër bi lu may wax ci moom lu ndaw la bu fekkee yaa may jël yal na ko yàlla soppi mu nekk ni kuy sangu sama jëkkër bi xeeñ na du sangu yal na la yàlla def nit a diine nga yiw tuuti di sangu di set yow bu dindi micro bi damay wax xool ma jël ma ni ma jongomaa nu ma rafetee nii man xool ma tarkal la macha allah xaa du ma mool la maa pare na xoolal li xool ma nga xool kii xam lañ naan boo nekkee sa kër da nga jappale nekkul da nga jongo mara da ngay and ak ku da ngay and ak ku pare da ngay and ak ku xaw a kii pour defar ko ki def na lu ne mënul set du sangu ni nga gisee ni amul pat amul borox xol ko xol signal xol signe bi do may ma sama jamm yow bi nga ñëwee bay def set setal mënoon ngeen wo njoba ndax bu dul dara ñu ñëpp dalifoor lañ dëkk wa da vision ñu fi ngeen di dem ñeneen ñu leen di caméra Amo lo wax jaru ngay lek mad bi xam nga limu wax deug la bàyyi ma durere gis na ma fi yabi Xale bu ndaw de bës mon trap mon teg di tasaare Gars yi la tekki kana ki mën na may déranger Ay wala rube rube wañu yëngal game bi ay wala rube rube Halevunda de buzz, mon trap, mon tech, dit à saré. Gaï d'ici, c'est de la tech, qui t'a qui m'en a me dérangé. I will rube rube, I want you young girl, game me, I will rube rube. bi bu ma jaaxle yéen mafia bi ah yeah